société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di de presse dal leen ak jàmm UMS e di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb magistrat yu Sénégal diggëm ak agent judiciaire de l'État ba moytul ci tas la jëm ginnaaw bi nga xamante ni nag alxames bi weesu juge bi di Sabassy Faye moo doon atte procès bi nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko mi ni sepp woon ci liste électorale bi moom nee na nañ ko dugalaat waaye agent judiciaire de l'État d'accordul ci dogal boobule bu noppi fësalub communiqué daal di mel ne xamee ki di Sabassy Faye nga àtte mbir moomu le loolee nag merloono ba futtu ñi nga xamante ñoo di magistrat yi ubbil journal bii di réew mi quotidien moom mi nga xamante ni sax nataal Sabassy Faye moom la njëkk nee na Sabassy Faye moom gañe na waaye leen fa yéen kaay moom nag li mu fësal nee na verdict procès boobu nga xamante ni moo sepp woon Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba si fay ni nañ ko dugalaat loolee nag merloon agent judiciaire de l'État moo tax moom nag li mu xamle moo di audience boobu la mën nañ ko tuddee lépp sauf audience ndaxte jaarul yoon ba noppi kile di juge Sabassy Faye moom noppul benn yoon di violer li nga xamante ni moo di loi yi UMS nag mer bu futtu fësal communiqué nee na agent judiciaire de l'État nii nga xamante ni doxale naka du cëram vox populi neena na procès bu doon am sa Ziguinchor alxames bi weesu ñeel sepp gi ñu sepp Ousmane Sonko ci liste électorale yi te juge bi ne nan ko delloowaat mi ngi wëy ci mbedd mi ndax Aliou Ndao di ancien procureur général nee na Maram Gueye nekk procureur cour d'appel ak ki nga xamante ni moo di Sabasy Faye ñoom nag li ñu fësal ci kaw loolu la magistrat yu bëri di xalaat ci suuf jamono jooj nag alutin Tine di xamle ni ndam lool nag magistrat yu Sénégal yëpp ñoo ko am waaye nag mi ngi xamle ne ci biir Vox Populi ne nag magistrat yi tàmbali na yëngu jëm ci yoon wu baax wi maître Bamba Cissé di avocat Ousmane Sonko moom nag li mu xamle nee na pourvoi en cassation boobu ñi nga xamante ni ñoo di avocat yu nguur gi mënoon nañ ko bañ a def ndax amul benn njëriñ Walf Quotidien ca jamono jooj nag mu teg loxoom ci mbir mi nee na Ousmane Sonko jege na élection présidentielle yi waaye tamit sori na ko ndax ñi nga ni ñoo di avocat état bi dem nañ déposer li nga xamante ni moo di recours ca kanam cour national bii di l'essentiel ne lu ci mënti am Sonko moom am na ndam waaye nag luy ñuul ci soow mi mooy xeex bi rek la gañe li nga xamante ni moo di guerre bi moom gañe ko lii quotidien nee na Sonko indi na yëngu-yëngu ci biir magistrature bi enquête quotidien ca jamono jooj nag mu ne xeexu Sonko bi jeexagul moom Sonko ndamam li dafa wóoragul sax ndaxte ñi nga xamante ni ñoo di avocat nguur gi dem nañ déposer ab recours ca kanam cour suprême enquête quotidien ñëwaat ak ñun euh, ci li nga xamante ni moo xewoon ca procès bi doon am alxamis bi weesu foofee ca tribunal bi Ziguinchor ci mbiru Ousmane Sonko Diallo Ndiaga Sylla di expert électoral nee na juge bi dogal googu nga xamante ni jël na ko dañ ko war a appliquer ci saasa ca jamono jooju nga xamante ni UMS di Union magistrat du Sénégal ak agence judiciaire de l'État ñu ngay coow moom Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi ci terrain bi di ut li nga xamante ni moo di ay parrain démb maa nga ca Thiès waaye ki nga xamante ni moo di Habib Niang digg na benn million ci parrain njiitu réew mi président Macky Sall ci biir l'Observateur muy woo ñi nga xamante ni moo di militant yi bokk Benno Bokk seen xiiroo geeg ki nga xamante ni moo di Amadou ba pare nee na loolu mooy seen liggéey waxtu wi coow moom bëggatu ko fee dégg ca jamono jooj nag député benn bokk yaakaar ci biir les écoles ni ñoom Amadou Ba moom la ñuy parrainé ñett wala ñeenti député yi nga xamante ni ci coalition boobu lan bokk ñoom teewuñu fa woon dañoo tukki woon Amadou Ba ci biir tribune yéen kaay di ñaax Lat Diop ak Daouda Dia ñi nga xamante ni ñoom lañ jox sport ak élevage ginnaaw bu ñu doon amal passation de service moom nag ñaax na leen bu baax ci seenub liggéey ñu daal di taxaw ba askan gis ci seen bopp nga xam ne teg nañ ko loxo maire bu ni moo di bis bu rafet rek ñu daal di koy teg loxo ndaxte ñoom dañoo jàppoon ni kii lay di Bakary Diédhiou moom moo doon financé ndaw ñi ca manifestation yi weesu bés bi la jour ca jamono jooj nag mu dalal El Hadj di candidat bunt bi moom nag li mu xam ne moo di nguur gi dañoo ragal Ousmane Sonko ginnaaw ndam yu bëri yi nga xamante ni am na ko l'observateur ñëwaat ak ñun ci attentat bi nga xamante ni moo amoon ca yaraax bis bu ñu taaloon te ay doom doomu aadama ñàkk seen bakkan am ñu ci am ay gaañu gaañu Cheikh Ibra Dib Sëriñ moom nag teg nañ ko loxo fekk na juróom yi nga xamante ni danoo njort ni bokk nañ ci attentat boobule immigration clandestine ba léegi jeexagul ubbil journal bi de la tribune nee na ab gaal jóge na Sénégal dem ba fa nga xamante ni moo di Tenerife daal di fay teer gaal googu nag bi ngi yaboon téeméer ak ñaari doomu aadama bokk na ci juróomi jigéen ak ñaar fukk ak juróom tu tànk sport ak stade yéenekaay Sénégal Cameroun nga xamante ñoo bokk poule ci coupe d'Afrique des nations bii di ñëw ñoom war nañu football match amical altine bii di ñëw waaye nag seen rivalité yàgg na lool bu ñu sukkandikoo si stade yéen kaay ca jamono jooj nag record naan match amical bi nga xamante ni moo nar a dox suñu diggante Cameroun altine bii di ñëw ci flanc droit bi kan moo fay nekk diggante Fadiga Sané ak Krépin Diatta loolu la record sampub laaj sunu làmb ñëwaat ak ñun ci face à face bi nar a dox diggante Eumeu Sène ak Tapha